aca jërë ngeen jëf euh, yéen suñu mbokku internet bu 221 people ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal bu baax di ci delloowaat ku nekk euh, sa wàccuwaay amaat li di kontaante ak mbégte bu baax nag comme ni ma ko farat def kilifa yëpp wala sëriñ boo xam ne dalal naa la ci biir sit bi rek fas yéene naa ñu waxtaan ci xam-xam yaatal ci bu baax a baax aca ki may dalal tey tey mooy suñu njëlbeenu émission nag ñu fas yéene waxtaan ci xam-xam ci bu baax a baax kooku mooy sëriñ Xaadim Fall moom sëriñ Daaru Assane Ndiaye dinañ yaatal ci xam-xam yaatal ci xew-xewu jamono ni ma ko waxee saa su nekk mu di actualité lépp lu ngeen yaakaar rek tey dinañ ci waxtaan bu baax a baax waaye lépp dañ koy wér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 waaw ak ñëpp rek ñu ngi leen di bu baax a baax ca di leen jox seen wàccuwaay maa di ñaan suñ kàddu fekk leen ci jàmm. jërëjëf euh, sëriñ Khadim Fall moom Serigne Darou Assane Ndiaye ñu ngi lay fay bu baax di lay kontaane ginnaaw seeni set yooyu tànd ak dal ñu ngi ci kontaan bu baax waaye nag kàddu bi euh, soo ko yokkee bu baax mu gën a bir dinaa ci gën a kontaan ñi lay seetaan di lay taataan sax xam-xam bi dinañ ci gën a kontaan bu baax xam naa nag daa defagut yëfu ndaween wala yëfu ñu sant jàllo mais dina yokk kàddu bi bu baax a baax acca te dinañ waxtaan ci fukki ponk ak euh, benn wala fukki ponk ak ñaar waaye lépp ci xam-xam ci diggante ñaan ak faj waaye xew-xewu jamono ni ma ko waxee saa su nekk nañ ci yaatal bu baax a baax lépp lu ngeen séntu nag dinañ ci waxtaan mu di actualité lu ngeen bëggee xam kii daan ci diggante Balla Gaye ak kii di Gris bi topp leen ko ba mu jeex tàkk tey mu wax leen kay daan acca sëñ Xaadim tey daa xam ne foo xam ne foofu laa bëggoon tey ñu tàmbalee mhm. mu di ci tawat yi waaye tawat yi dama ci sepp lu ci mel ni hémorroïde ndoxum cité ballonnement ak lii di seere yaa ngi ciy def mbir mu doy waar ñu koy waxtaane saa su nekk ñu ñëw ci waaw ku baax maa ngi lay siyaar bu baax laaj nga laaj bu am solo muy wàllum hémorroïde ah hémorroïde nag maanaam gaa yi may seetaan maanaam ñëpp xam na ni ma ci mel. waaw man si ñetti fan laa la koy fajal. ak ku mën a doon nag. muy bu nëbb bi ak bu génn bi. Mhm. ragaluma ci dara. waaw na ma ko waxee woon noonu laa ko xewaat fii. waaw émérite bu nëbb ak bu feeñ. ak seere ak ballonnement. Mhm. ak tànk yu métti ak ndigg yooyu yëpp si ñetti fan laa la fajal. waaw ca na ma ko waxoon fee jotu Touba. Mhm. noonu laa ñuy ñëwaat fii ci Dakar wax. est-ce que ah, bu baax. incha allah rabbi mhm. am na solo gis ngeen ci tawat yooyu noonu nee na ci ñetti fan rek lay jëflanteek yow nga gis ci lii di tan ah, ni ma ko waxee nag du doon koo xam ne dañ na naqaree jot ndax numéro yi ñu ngi doon af ci suufu barre d'écran bi aja waaye ci tawat yooyu faj bi ci lan la ay sachet wala daam po yoo xam ne danga koy jëflanteek jaamu yàlla ci nan. waaw kii bi moom day biteel maanaam ay sunguf la yoo xam ne waxtu mu nekk ñun ñoo koy liggéey suñu loxo mais waaye nag moom ci ñetti maanaam si ñetti waxtu nga koy naan mm-hmm. da ngay ndekki ba suur añ ba suur reer ba suur waaye yooyu maanaam yi daal ma la wax li commencé ci man émirite bu nëbb ak bu feeñ maanaam ba ci maanaam si biir day def njalaw maanaam wala sax maanaam booy seq sa soxna maanaam ngay sëy ba ci yàgg sa awra mel na lu wàññi ko sax di dellu ginnaaw mm-hmm. yooyu yëpp da koy faj maanaam maanaam ci émiride daal moo koy def maanaam émiride moom maanaam lim mën a yàq dafa bëri lool. waaw dafa bëri lool waaw. jërëjëf sëriñ Khadim Fall moom sëriñ Darou Assane Ndiaye ñu ngi kontaan bu baax ci xam-xam boobu waaye jëmm ji ngeen di gis nag ci xeet yooyu ñu doon waxtaanee mu di émiride di ndoxum siti di ballonnement ak seere jàpp leen ne garab yu bëri ñu ngi soqeekoo ci moom mu ngi jëflanteeg ñu bëri ñoo xamante ni ci garab yooyu nga xam ne saa su nekk mu ngi ciy def tawféex mos ko nag doon na loo xam ne tawféex la ci yéen. acca dañu ñëw ci euh, liñ naan tul suñ ko waxee nag suñu xel dina jëm ci dara bu darbuta boobu na kenn waranteetu ko yaa ngi ci def mbir mu doy waar ku bëgg tul bu wér daal fexeel nga xool kii di sëriñ xaadim. waaw ko baax jërëjëf ci laaj bi tul sax moom yaakaar naa maanaam ku seetaan kii bi maanaam ku seetaan émission bi maanaam war nga cee am yaqin moom bu wér a wér maanaam ndax moom maanaam dér bu dëgër maanaam na ko waaye bëggee ma ne ko waaw ca yaakaar naa ku ñëw ba fa ma dëkk maanaam su la neexee yow nga sa micro yow nga ñëw def kii rek nga laaj nit ñi maanaam ca boobaa sax bu ma tàggu maanaam moog émirite bi sax laa yemale. wala mhm. neexee ñëwal Touba nga laaj. maanaam boo ñëw Touba sax bu ma woo. waaw lool maanaam loolu lu leer la daal. Mm-hmm. waaye daal di commencé ci xeetu maanaam tul ak ndamaloñ. Mm-hmm. ak muslay ak kaaraange. waaw loolu moom wax dëgg yàlla moom am nañ ci loo xam ne wax dëgg yàlla wuñ ko fenn daal. incha allah. acca niñ koy waxee lii di dër bu mu di tul loo ko jënd nag eh, jar na ko waaye soo jëflanteeg sëñ xaadim rek nga xam ne suñu borom am na lu mu ko ci dénk wax nga ko sa biir wax léegi mu di kaaraange ñu ñëw ci kaaraange bi nga liggéey mu di protection. Mm-hmm. léegi maanaam ba léegi xam nga génn tul maanaam ay ndomba lay doon. Mhm. maanaam ak jot sax moo ñu ak maanaam yenn wana yu fës yi waaye ay ndomba lay doon am na yu am na yoo xam ne du am pettaaw am na xam ne ay laax lay doon waaw am na yoo xam ne ay laax lay doon maanaam léeg-léeg ñu ko faral di togg maanaam waaye ajuma na ñun maanaam kenn du ko laaxtul ajuma maanaam suñ ko laax laaxee maanam ñaara day faral di ànd ak xabtal. maanaam mooy nga gaaw a mer wala boo doxee ci naaj yi maanaam ba jàgg sa yaram di xasan wala ngay kii dal maanaam di gaaw a jëflante ak wala nit la ci paaga sax nga <laughs> kii xaw koo kii waaw waaye kaaraange daal lu solo la maanaam ci mooy gàllaajub ndaw waxtu nekk nga dégg maanaam ay jam na nit agressé na nit ak nangam waaye wax dëgg yàlla ndomb yi daal maanaam comme noonu ma la ko waxee rek saa boo ñëwoon bu Touba maanaam du jar nga may woo maanaam duggal Touba rek laaj kan mooy Xaadim Fall moom Sëñ Daaru Asan moom bu ko defee moom danañ la ci wax maanaam ay seere yu mat sëkk dal incha allah rabbi acca ñu dox ba léegi yaatal wéyal bu baax a baax dama ñëw ci euh, lii di euh, garab wala gàllaaj goo xam ne ñi nga xam ne dañoo am lante ñu leen di yóbbu ci yoon euh, nuñ ko waxee su nekk ñenn ñi sax dañ leen di tooñ waaye ëpp leen loxo bu gudd ñooñ leen nga leen mën a baaxee ah, loolu moom sëñ bi képp ku ñu jox communication ak foo mën a nekk bu ma xamee sa tur ak sa turu yaay ak sa turu waajuru góor fépp foo nekk laa la wax. Mm-hmm. fépp foo man di nekk su ma xamee sa tur ak sa turu yaay maanaam ak quartier ba nga nekk ca foofa moom mu soobee yàlla mën naa bañ a mën naa bañ a yegg fenn maanaam sunu borom dana ci sotti ndox mu sedd waaye lépp na ci kàttanu yàlla. macha waaw ak loolu am nañ ci yaqin bu baax. Mm-hmm. am na ci am na ñoo xam ne tëbës ci daaw rek dina joxe comme occasion. maanaam bi ñëwee sama kër di lekk lak àndaale nañ convocation ba maanaam ci mujj fenn yàlla seere na ko waaw ci li may wax ne yàlla rek laa koy seeral incha allah leen ne kooku nag ponkal la mu di Serigne Khadim Fall moom Serigne Darou Assane Ndiaye bagaasam yu bari ñu ngi circuler ndax yu bari yoo xam ne ñu bëri ñu ngi koy jëflanteeg ñenn ñi ci loxoom la jógee jàpp leen ne nag borom xam-xam a ngi noonu te doon koo xam ne dafa naqaree jot ndax numéro ñu ngi noonu affiche si suufu baar d'écran bi aja waaye dama ñëw ci ñi nga xam ne dañoo bëgg lii di borom kër mu jafe leen waaye ñi nga xam ne dañoo bëgg soxna mu jafe leen te yow am na loo xam ne borom dénk da la ko yaa ngi ci def mbir mu doy ak loolu moom ñaare rab moo koy def am na ñoo xam dañuy gént di sëy am na ñoo xam ne maanaam seeni rab moo leen yaxal bu nu amee aw force bu toogee seen wet maanaam ñu énervé wu maanaam énervé wala ñu kii daal mais waaye loolu rab da koy def maanaam léeg-léeg maanaam liggéey da koy def maanaam léeg-léeg nga gis ko am soxna ba tàggoog moom maanaam xaw ko mere léegi maam ba dij ko maanaam bu ko defee nag soxna si fenn fu nekk mu ñaanu naan ay dama yoro fekk dañ koy dij loolu it day am. loolu it boo dikkee. Hmm. maanaam maanaam liñ lay jox nga suuroo ko incha allah rabbi ca sansa lay dañ mais waaye boo ko suuroon nag ci ab duus nga koy suuroo lu mel ne salle de bain foofu nga koy suuroo nag mu deñ maanaam boo koy suuroo maanaam ab bolog rek ngay sol wala maanaam bu dee jigéen sax mu sol sipp maanaam rob astaghfirullah rob. Hmm. bu ko defee mu soog ko suuroo. Hmm. waaye loolu it moom ca sansa lay dañ bu ko defee ñu soog ko wutal ay sangat yoo xam ne ay kaaraange la bu ëllëg kenn ko mën a liggéey maanaam waaye lool daal li koy sabab daa bëri suñ ko doon leeral sax dañuy xaj am na ñoo xam ne bun maanaam bun tàggoo ak seen jëkkër maanaam ñuy wax ne maanaam bu mu jabar mhm. ñoo mu jug dem ci sëriñ dem liggéey ko ba waa ji fu mu dem ñu dàq moom mën naa yaakaar rab moo koy def <laughs> fekk du loolu maanaam fekk ay def def la mhm. am na ñoo xam ne maanaam rab la ñu yor mooy waral ñu gént di sëy maanaam li fekk sa yaa maanaam yaa ngi maanaam di génn di sëy fan yooyu boo xoolee maanaam say mbir des maanaam day dëgër maanaam dangay ngay mel ne yow say wërsëg day tëju maanaam nga yaakaar ne dañ laa liggéey fekk sa rab moo la yàqal maanaam loolu daal suñ ci nekkoon émission bi sax mën naa gudd lépp waaye ñu xew cee tënk rek aca kon am na solo ñu dox ba léegi njëkkanteek waxtu wi wéyal dama ñëw ci papier mu di ñi nga xam ne saa su nekk dañuy sàkku ñaan ci mbiram këyit waaye dañ ci am jafe ci biir réew mi fakka salika ni ki si ni mbokki moodu moodu yi ñaan lu nañ ci basoon loolu leen ciy baaxee waaye waa këyit moom maanaam bala ñu ñaanal kenn il faut que ñu xool ko ba pare maanaam ñu seet ko mm-hmm. maanaam ba xam lan moo ko gàllankoor maanaam ba xam ñun mën nañ cee ñaan wala mënuñu ci ñaan. Mm-hmm. waaw waaye lépp li ñu wax nii nit mm. maanaam yàlla rek lañ koy seereel. incha allah. acca ñu ñëw ci beneen ponk gàllaaju kër. gàllaaju kër moom bu doy waar bëgg naa nga jàppale ci nit ñi ndax léeg-léeg da nga gis ñoo xam ne loolu dañ koy def seen kër waaye du tey sàcc dañ fay dugg di leen di sàcc. naka su dul noonu la. Mm-hmm. maanaam xam gàllaaju kër maanaam ak gàllaaju sàcc maanaam wute na xam nga day ñaar. maanaam am na gàllaaj yoo xam ne maanaam ci buntu kër bi fi nga koy wékk muy joow maanaam ni ko maanaam ni ko kii bi di jooyee maanaam ngelaw li bépp saay bu ñëw maanaam noonu la koy rombe bokkut ak gàllaaj yi nga xam ne si ne boo ko suulee sa kër kenn du mën a suul liggéey mën a yàq maanaam dafa nekk ñaar xam nga day leer bii am na boo xam ne boo ko sa kër mm-hmm. waxtu woo fa génnoon ab saay-saay bu ñëwee it maanaam nii la koy rombe maanaam ni muy joowee ci kaw buntu kër bi noonu la ko saay-saay bi rombe moom dem ak ku mën a doon mhm. am na beneen boo xam ne nag maanaam pour wàllum accident suul maanaam di def ay liggéey wala dara moom maanaam ak lu mu mën di andi rek buy teg tànkam ci bunt kër muy këpp ci kaw moom ca sensé loolu moom moom am na ci ay tegtal yoo xam ne wér na lool dégg nga ci gàllaaji mag ña la woon mhm. waaye lii nag maanaam boo gisee ñu ko yaatalit mhm. maanaam lenn taxut maanaam ba dimbali maanaam mbindeef bi ngir yàlla waaw waaye li ñu am moom yaakaar naa ak mun <laughs> toogoon ñu ngi am bu baax a baax. incha allah jërëjëf sëñ Xaadim aca ñu dox ba léegi wéyal yaatal bu baax a baax ñëw ci yeneen ponk dama ñëw ci koo xam ne liggéey da koo jàpp waaye dama ñëw ci koo xam ni dafa am feebaru lii di niw kàttan di ngóora sànq junjoon nga ko sax ñu yaatal ci bu baax a baax. waaw néew kàttan moom li may wax gaa yi mhm. képp ku ñëw <laughs> ku ñëw maanaam boo amul vingt minutes ci kaw bul fay. su ma la joxee boo demee boo amut vingt minutes ci kaw bul dellusiwaat bul fay soxla ma la nga yor dara waaw yàlla seere na ko mhm. waaw loolu daal moom mhm. fee laa ko waxoon maa ñëwaat fi waxaat ko waaw lu leer nañ ñi laa wax mhm. maanaam soo dikkee maanaam vingt minutes laa lay garantir ci kaw bu la neexee waaw maanaam niw kattan it moom boo dikkee il faut que il faut que ñu xool lan moo ko waral il faut que ñu xool lan moo waral nga néew kàttan maanaam na xale yu bëri bëri néew a gàttal ñi ñu ngi génn di sëy maanaam ñi sax amuñu njariñ duñ tàkkee seen tubéy sa wala dara. nit ki bu dikkee daal il nga xool ko. Mm-hmm. ak fu mën di nekkee nga xool mbiram rek. soo ko mënee. moom nga ne man nag boo ko mënul moom nga ñaanal ko mu mu tase ak ku ko man nag. incha laata may ñëw ci bayre bu saf sap bi ngay liggéey damay ñëw ci koo xam ne liggéey da koo jàpp ku liggéey jàpp nu ngeen koy xamee nan lañ koy ràññee ci nit ki. Ah, liggéey jàpp moom. maanaam ku liggéey jàpp moom ay mbiram day yaatu lool suñ ko doon wax ci émission bi nii. waaw du fi xaj. man waaye képp ku liggéey kii daal jàpp moom boo dikkee ci kàttanu yàlla ñu dindi ko fi nga toog. maanaam ci biir kër gi nekk. maanaam wala ñu yónnee la suñ la waxee ni nga koy defee moom mu soobee suñu borom incha allah rabi lépp dana deñ maanaam liggéey nag bu nekkee ci yaram maanaam ci dana war a liggéey far dégg kii maanaam far bi danti mm-hmm. maanaam maanaam wala nga dem ba waaj àgg sa bërëbu liggéeyukaay ba ñu ko waat tey ji wala nga dem ba mm-hmm. àgg sa bërëbu liggéeyukaay sa bopp di métti wala nga dem ba àgg sa bërëbu liggéeyukaay nga war a liggéey nga jotee ak kan la boole yooyu yëpp liggéey da koy def wala ay dëddale maanaam lépp mooy xeetu liggéey rek mm-hmm. waaye yooyu yëpp nag il faut maanaam il faut que dañ koy xool ba pare ah. moom bu ko defee ñu ci mën a soog a mën a dugg incha allah ñu ci bayre bi ngay liggéey bayre boo xam ne bu sax sap la nag waaye doo xam ne dañ lay tudd rek tudd boo xam ne amut benn njariñ bayre boo xam ne dañ la xel di jox. loolu baaxut ah, ok am na bayre boo xam ne moom ay façon façon la maanaam ci wàllum xaalis maanaam ak wërsëg maanaam ak nit ñi fekkente ne kii la daal. Mm-hmm. maanaam da nga bëgg mu yaatu. Mm-hmm. maanaam ci xeeti nit ñi. Mm-hmm. am na nun la koy waxee. ak nit ñi di la jox. maanaam fekk naa bëgg nag mu ànd ak boolu mbooloo maanaam maanaam ak bayre mbooloo. Mm-hmm. maanaam ci bool bi nga xam ne si ne maanaam mbooloo moo ci sukk moom lan koy booleel maanaam moom lan lay jox nga sotti ci ndox somb sungur si def si def ci ak xorom ak suuf ak parfum boobu moom maanaam fi mu doon nii saa bu añ jotee il faut bool bi. yàlla xam na ne maanaam lu leer laa lay wax. mboolem koo ko jox maanaam alterné ak alxames lan koy sangoo. saa buy xëy di dem di lijjanti ci lu mel ne xaalis wala dara nag mu koy raayoo waaye ci kàttanu yàlla daal maanaam suñu borom dana defar ay mbiram incha allah rabbi. jërëjëf sëñ Khadim Fall jërëjëf ci xam-xam bi waaye jërëjëf ci leeral yooyu nga xam ne def nga ko euh, lépp loo xam ne rek yaatal nañ ci bëgg ñi nga xam ne ñu ngi taatan rek njëriñ lañ ciy jëlee. atya fa may jeexale mu di xew xew jamono mu di actualité saa su nekk nga ne lan nga gis ci bi dox ci diggante Balla kii di kon ni nga ma ko dee ci suuf kii daan doo ko wax ci kaw. déedéet ak loolu duma ko wax ci kaw waaye naa la ko dee ci suuf. kan ngay digtal ay sarax. ak ah, ñoom ñëpp rek. Ah. waaw. ku nekk dina génne sarax. <laughs> ah ñoom ñëpp a waaw incha allah ñëpp mu doon génne sarax moom. nga ne saraxu gëlëm bi kan moo koy génne. ah am na ko ci génne ñoom ñaar daal nan bàyyi noonu rek. kon baax na ñu bala nga tàggatoo. ah waaw xanaa sant leen bu baax a baax di sant sëñ Mouhamed mi ak yéen ñi mu àndal waaw ah, di leen ñaanal yàlla ne suñu borom yokk waaw ah, ca aar leen nag ci barki sëñ Touba wax dëgg sama xol sedd na lool waaw ah, di gërëm waa Dëru Ndiaye waa ki sëñ Dawra wax dëgg yàlla ñooy sa ñoom ñooy sama lépp ak sant sama mbokki donga yi. Mm-hmm. Eh, maanaam mooy dongay laxasaay yi nga xam ne si ne ñoom laa bokkaloo ne ci daara ji maa ngi leen di sant am seen fay ak dongay gerle yi dongay sëñ Mbàkke son looy ñëpp. wax dëgg yàlla ak mbokki donge Daara Ndiaye ñëpp daal ama seen fayda maa ngi leen siyaar bu baax di leen ñaanal